jëfinam am na benn instant d'accord ma ci dama jàpp ne ministre conseil la woon lépp lu mun a wax président Macky am na fu mu koy waxee du woon ci télé yeeg ci rajo yi te loolu la nekkoon di doxal sanction nag jëm na ci mais sanction dàq bi man ci loolu laa àndul euh, jàpp naa ne mënoon nañ ko xool nu ñuy négocier ba mu dalaat ba mu delluwaat ci rang yi ba lépp lu muy ñaxtu mu dem ci commité directeur wala mu dem ci euh, euh, instance yi nga xam ne partie bi taxawal na leen ñu mun a waxtaan seen biir ba jàmm am daal su ma sañoon parti bi di APR di parti boo xam ne euh, ñun ñu nekk ci mouvance présidentielle bi yëpp euh, jàmm rek lañ ko yéene ndax mooy suñu parti leader mooy président Macky Sall euh, suñu sañoon kon lu yokkul du ko wàññi. kon yokkute moo ñu gënal lu luy wàññeeku loolu rek laa mënoon wax ci Moustapha Diakhaté wax itam nañ ñëpp dal. ndax tey euh, am na ñuy wax ni euh, dafa am ñu nekk ci ginnaawam di wut euh, mbirum mandat 2024 loolu jotagul yàlla rek xam ko koy fekkee donc loolu yaakaar naa nit ñi mën nañ ci gën a ànd ak dal xam ni lu nekk ak jamonoom am na tam ñu koy tuumaal ne c'est parce que amatul privilège moo tax mu yuuxu ba mu nekkee sangam sangam ma ne loolu yëpp jaru ko fi li ñu xam daal mooy te constaté ko mooy génne nañ ko ci parti bi leneen lu ñu gënaloon ñu mel ni man mooy ñu bàyyi ko ci biir parti bi mu nekk ca biir. di doxal di ànd ak ñoom di doxal li am ba des mooy euh, sunu communication en tout cas ñun majorité présidentielle am na ay jafe-jafe malheureusement nag boo ko waxee nit ñi foogee ko neneen waaye il faut ñuy assumer yenn saa nangu ni am nay jafe-jafe waruñu toog ci position wu tontante ñun dañu war a wan Sénégalais yi du ñu jëf ndax lu ñu jëf du rëy diggante 2012 ba 2019 ak li président tàmbaliwaat programme bu mu teg bi liggéeyal ëllëg bi donc loolu la ñu war a gën a tal loolu nag waruñu xaar à chaque fois ba opposition wax ñu dem toog ci plateau télé di tontu loolu benn affaire la maintenant nag suñu communication am na ay individualité ah am na ñoo xam ni macha allah leen gisee ci plateau télé da ngay da ngay kontaan parce que xam nga ni dañ fa waxu nit dañ fa wax wax ju taxaw wax ju sénégalais mën a jot wax ju sénégalais mën a dégg loolu nag yaakaar naa war nañu gën a encourager ñu mel noonu euh, gën ci góorgóorlu ba nga xam ni jafé-jafé yu ñu am ci communication yëpp dañ ko mën a saafara te séminaire boobu ñu defoon ci communication euh, de la majorité présidentielle dama jàpp ni bu ñu ko toppoon mu wañoon nekk rek euh, benn euh, séminaire effet d'annonce boo xam ne dañu yuux rek ne def nañ ko télé ak rajo yi ñëw waxaatuñ ci leneen jàpp naa ne bu ñu ci góorgóorlu woon dina doon dinañ mën a am ay solution yu baax yoo xam ne dina tax ba communication bi bañ a sooxe.